Fatima ñu leen nuyu di nuyu l'équipe ABS di nuyu àddina bi yëpp di nuyu Sénégal monde entier di ñaan Sénégal jàmm sax fi di wax ni saison bi yàlla def na li nga xam moo gën eh, di ko sant yàlla rek comme ni ñuy wax rek comme gars moom bu ñu nee moom félicitation rek parce que am na lu ko waral waaw kon euh, ñi gën a yokk góorgóorlu rek waaw kon euh, lii passé na saa yi ñu ngi jéem a xool li neen li nga xam moo nekk suñu kanam. leen dëgg laay mën a wax loolu liggéey la rek xam nga te bu ñu seetloo si ginnaaw at passé dama fi gaañu woon def sept mois jéewu ma waaw mais nag euh, loolu ku xam ne ko joueur bu toogee quelques mois yooyu noonu jéewu métti na mais dal mentalement dama pare woon ne ah am li des mooy mooy dàq quoi naa gën a liggéeyaat dafa am lu ma war a wane et

suñ ma fa dóoree sax maa tooñ suma bopp quoi parce que li nit ñi wax moom boo ma def li nga war a def moom da seeti leneen quoi waaw ah, sant naa yàlla bu baax parce que foofu dëkk bi nga xamante ne ñu bëri bëri foofu lañ ma gën a déggee eh, di wax ni bon bëgg naa dem yeneen dëkk def loolu ma def foofu quoi waaw suma bët daal laa nekkul foofu noonu mu ngi si leneen. non bii du sama meilleure saison sax eh, parce que année bi vingt cinq bii laa dugal. te année deux mille dix dugal naa trente but eh, kon na may naan bon jege na ko foofu yàlla dogal na ma doon sénégalais bi bu ëpp bi foofu gars yi ñu ngi naan deux mille dix ba deux mille eh, vingt trois mais nañ sóoraale ne man géewu ma ñoom dañ calculer temps bi mais dugg naa fa dem naa fa Angleterre dem naa fa Bruges def naa at Bruges def naa six mois Angleterre kon boo xoolee foofu benn trois ans la waa Kachim Pacha laa benn un an. Galatasaray un an ak équipe bii nii voilà kon maa ngi dugal soixante seize buts su ma juumul ak treize passes décisives eh, loolu du nu ma ko mën a waxee du chance ci wàllum bëgg et loolu liggéey la quoi. saison bi comme ni ma koy wax moo gën a métti si man parce que dama jóge woon si blessure xam nga. amay début bi ma relation man ak Galatasaray man ma forcé ne damay dem pour am luma woné quoi wa parce que man non laay mel quoi man boo nee déet fu mu nee noonu foofu laay gën a sama bop wa motax tay nak euh, bien vrai que ñëpp né ne saison bi mo dakk beulé bon peut-être nak mën ningo waxé si si manam si bi ma duggal façon bi ma duggal parce que yépp c'est compté et voilà te donne ce qui bo xamante ne moins si force nekkul équipe bu mag ma duggal fa yenn bi yi ba pare. c'est la première fois sama assist comme bi si saison bi la gën a ëppee si si sama euh, équipe yi ma jaar yëpp quoi bon mën naa ne tam saison bi doon na saison boo xamante ne tamit dina ma remarqué sama sama carrière quoi. Sénégal ñun macha allah ñun moom muy Mbaye jaar ñëw keneen ñëw Sénégal am équipe bi mi ngi fii quoi waaw xam nga rek équipe na yenn saa di nga bañ egg fenn sax dañuy du si jour waaw si ñu ko si ko entourage la waa dafa dafa am solo quoi ñoom ñëpp ay xale lañ am nañ ay mag yu leen jiital mais entourage dafa am solo mooy am dëgg waaw dëgg nekk fa loo xamante ne mooy tax équipe bi dem waaw te ak doomu aadama dafa am quoi waaw foofu ñu fa nekk ñëpp ku nekk ay suñu ay morom lañ ay frère lañ xëy na wax ji même bëri mais bu ñu fu ñu tasentee leneen ngeen di gis xam nga ñun war nañ mën a romb fu raw foofu Sénégal ñun waaw parce même dëkk ba sax yenn compagnie dañuy waxtaan ñoom sax ñooy avoué que ñun car macha allah suñu équipe bi mooy loolu comprendre man parfois damay poser a question da ngay dem wala doo dem xam bon da ngay mal sax que xam nga ne da ngay nekk ak ñoom waaw ñoom seen dëkk duñ sax laam-laame ndax dañuy dem wala duñ dem xam nga kon tey yooyu loolu sax benn saa dina ma metti mais benn saa damay naan boo yàlla moom mun la may lépp quoi waaw yenn saa yi mën na la tëjal fii ubbil la fële waaw nañu ñaan yàlla rek ñu nekk si jàmm. et continuer notre carrière pour nous. quoi parce que nous comme nous Sénégal ku nekk sa temps là quoi qui day ñëw dem qui ñëw dem bien attaque ñoo far la faire. quoi parce que sénégalais laa am sénégalais waxal comprendre nga man suis terrain bi def et que kon damay naan lu mu def rek noonu la quoi man moom fu mu toll nii moom naay football di di di jëm kanam gaay di apprécier naan félicitations man loolu la bëgg quoi. après ay sélection équipe nationale yooyu yëpp plaisir la quoi fi ñu dëkk ñëpp ñëpp xam nañ ni Sénégal man Sénégal la gëm moom la bëgg suma ma demee dem yëpp loolu moom du deñ quoi xam nga waaw dañuy bu ñu woowee support dañuy jouer bu ñu woowee ñu doon supporter parce que Sénégal kenn moomu ko comme ni ñuy wax rek. waaw noonu la demee mais nag euh, man damay liggéey rek continuer lu mu def noonu la waaw.